kon yow da nga bëgg Sonko. sunu bés yow xamee nga ko xamee nga ko. Eh, eh. waaw léegi kan mooy Sonko. man sama lu tax kii lu tax kii lu tax jomaay bi. jomaay fay. waaw moo remplacé Sonko dañu ko gisul. ñu xam ko ko ñu xam. jeex na voilà loolu laa bëggoon xam ana Sonko. ana Sonko mooy Sonko ma woote jomaay eh, waaw. ay eh, joxuñu ñu ñu ñu suñu kaabantal la ñu. waaw yow da ngaa ah, sama kii la. sunu bës TV. banta ah banta banta moo moo banta banta wage. waaw banta ku ne. ana ñu ma ana ñu ma manga suba. ñu mu ngi Dakar. ah mu ngi Dakar aca jëlal. da ngeen koy jox seen. ah ah jibi. jibi waaw. sama pap la. ndeysaan nga nuyul ma ko dégg nga. waaw ah, kon yow da nga bëgg Sonko. barki yow xamee nga ko xamee nga ko. Eh, eh. waaye léegi kan Sonko. ma xëppee sax ma laal ko. waaw léegi lu tax kii lu tax kii lu tax Jomaay bi Jomaay Faye waaw moo remplacé Sonko dañu ko gisul. ñu xam ko ko remplacé ah, na voilà loolu laa bëggoon xam ana Sonko. ana Sonko mooy Sonko. wootaane woote Jomaay yéen Sonko ngeen bëgg ay eh, joxuñu ñu ñu ñu suñu kaabantal la yow da nga voté mun di kii la banta ah, banta banta moom moom banta banta wage sunu bés TV ana ñu ma manga suba ñu ma Dakar ah mu ngi Dakar a ah, ca jëlal ah, jibi jibi waaw sama pap la ndeysaan sunu bés TV voilà